bir coalition boobee di Benno Bokk yaakar nga xam ne mom moom la lëkkaloowul daan di nekkoon ministre ci gouvernement ko kookee di président Macky Sall ko nopi dal di ber daaraam ne du bokk ci élection présidentielle 2024 ñu ñu ko kookee nak ginaaw ba président Bassirou Diomaye Faye jëlee nguur gi batay mo ngi soog génn di àddu jëmale ko ci situation pays bi te ci li ni mel daal di nakoy koy ci élection législative anticipée ñu na ma amal ci réew di Sénégal si li ni mel kookee di Youssou Ndour ne en tant que njiitalu parti biñ ñu dippee fekkee ma ci boole daa am lu mu jot a jàngat ci ëttu politique bi diggante 2019 ba 2020 ne loolee moom moo sababoon ginnaaw bañ accès ci élection présidentielle 2024 ñu génn mu joxoon ndigal kullu partisan ak kullu sympathisant nga daal di votel ku la neex ndax ne influencé wala nga daal di wax que ne ñi nga àndal ñu daal di voter Jean wala Paul ne loolee mënut a changer dara ci résultat yi ne li ni mel moom moo sabab mu daal di joxewaat même consigne de vote boobee daal di koy jëmale képp ku bokk ci parti bi ñu dippee fekkee ma ci boole ne bàyyi na képp ku féetewoo ci parti boobee nga daal di jël say propre responsabilité daal di dem voteel ku la neex ci élection législative anticipée na ma amal ci réew mi di Sénégal posture boobee kookee di Youssou Ndour daal di jël nag képp ku ci amal akub ñàngat da gis que ne lu sabab kookee di sunduur Ndour daal di amal li ni moom mooy que ne daa tàmbalee gis ñu bëri di transhumer di daal di dem ci parti boobee di Pastef te li ni même bu neexul partisan yu fa nekk waa parti bi dañuy obligé daal di leen di accueillir même bu nekkul day am benn obligation li gis nañ ko ci kaw kookee di maam jaara Fam gis nañ ko ci kaw kookee di maam Boye Diao ak ñeneen ñu bëree bëri li mel nag moom moo sabab kookee di Youssou Ndour nga xam ne ne éternel transiment la fu nooy rek lay daal di féetee kookee moo ngi préparé terrain bi te si lu yàggul dara di ngeen ko gis mu jéem a rallier daal di fexe bokku ci parti bi di Pastef ginnaaw li ni mel président wu parti boobee di Pastef te muy Ousmane Sonko démb ginnaaw ba mu àggee woon foofee ca Sédhiou yëkkati woon na ay kàddu daal di xamal ñu dëkkee foofee que ne autorités yu fa nekkoon te ñu bokkoon ci régime kookee di président Macky Sall daal di nañ fay luubal alal gu takkoo takku bu daal di toll ci quarante 47 milliards de francs CFA. si li ni mel kookee di président Ousmane Sonko ginnaaw ba mu fi njëkkee amal akub révélation bi nga xam ne ba tey moo ngi jur polémique jëmale ko ci benn dignitaire bu bokkoon ci régime kookee di président Macky Sall te mu yoroon lu tollook 1000 milliards ci benn compte kookee yëkkatiwaat na beneen révélation démb ginnaaw ba mu jàkkaarloog waa Sédhiou daal di leen koy xamal te révélation boobee daal di dem ci programme spécial de désenclavement si li ni mel kookee di président Ousmane Sonko ci projet boobee dañ fee waroon a tabax foofee ca Sédhiou ay tëli yu bëree bëri ci biir waaye ne ñi nga xam ne dañoo àndaloon ak régime kookee di président Macky Sall te ñu féetewoon foofee ca Sédhiou ñoo ak entreprise bi ñu ko doon seqal te muy akub entreprise allemand kookee daa sàkkoon ci ñooñee ñu daal di amal akub étude environnementale ngir ñu daal di saytu ci milieu yi ñu waroon a amal tëli yi ndax milieu yooyee day taa waa wala déet bu ko defee kon buñ tabaxoon tëli yooyee duñ doon am problème ci noor waaye tamit duñ doon am problème ci nawet waaye ne autorité yooyee au lieu que ñu jël xaalis bi nga xam ne ne entreprise allemande bi jébbal na leen ko ngir ñu daal di amal étude environnementale bi waaye ne ñooñee dañoo daal di jël xaalis boobee daal di koy séddoo seen biir te ne xaalis boobee xaalis bu bëree bëri la ndax 47 milliards de francs CFA la di xaalis bi nga xam ne ne mënoon naa tabax ay tëli ak i tëli biir Sédhiou. ginnaaw loolee tamit kookee président Ousmane Sonko yëkkati woon na ay yu njëkk daal di koy jëmale ci coowal général Souleymane Kandé. te ne si li ni mel bépp journaliste wala bépp politicien bu ci fësal ay xibaar yu warul ne na ko leer que ne dañ koy jël daal di koy sàndi foofee ca kaso ba nekk ca rëbës li mel nag daal di nay merloo politiciens yu bëri ba di ay kàddu daal di àddu jëmale ko si li mel si li ni mel kookee di Abdoul Mbaye yëkkati na ay kàddu daal di tontu kookee di président Ousmane Sonko daal di koy xamal que ne ci réewu Sénégal nekkuñ di dund ci état dictature ba kookee di premier ministre bi nga xam ne ne du avocat du juge du magistrat liggéeyul ci justice kookee amul droit di menacer naan day yóbbu nit kaso mais kookee amul prérogative boobee donc na xam ne que ci état de droit lañ nekk nekkuñ ci dictature na daal di may politiciens yi ak journalistes yi seen jàmm waaye ginnaaw ba kookee di Abdoul mbay daanee kii di Abdoul Mbow si la ko daal di feelu dal di wax que premier ministre Ousmane Sonko di président du parti boobee di Pastef xamul état xamul no état di fonctionner li ni mel mom mo sabab muy yëkëti ay cadre yi nga xamné ne ne day dem ci sécurité nationale di ko jëmele ko ci espace public bi ne ñom nañ fi ci jamono di président Macky Sall ba fi wayé né ko ci affaire de sécurité nationale mais kookee di président Ousmane Sonko nak mom xamul état mom mo sabab muy yëkëti kàddu yoyé diko ko ci dossier yu sensible yu mel noné diko ko sénégalais yi di ko daal di déglu nee du daldi di ci affectation générale Souleymane Kandé ndax né mbiru sécurité nationale la waaye tamit ginnaaw ba kookee di Abdoul Mbaw daané la ko kookee di Mamadou Ibra daldi daal daldi feelu daal di tontuwaale tamit kookee di président Ousmane Sonko kookee di Amadou Ibra né moom daal dinay comprendre maire bi nga xam ne ne premier ministre bii di Ousmane Sonko daal na koy mer daal di koy jëmale ci akop historien français buy bind ci indépendance su Casamance waaye nag ne kookee di président Ousmane Sonko meram boobee warta tekki que ne moom rek moom moo war a wax luy xew ca biir Casamance mais sénégalais la comme sénégalais yëpp nu amee droit wax ci coowal Casamance bi noo ne la sénégalais amee droit daal di wax ci coowal Casamance bi te ne kookee di général Souleymane Kandé lu dul ay honneur mérité wu ko ci réew mi di Sénégal taxawaay waa opposition bi ci sonk kookee di président Ousmane Sonko nag képp ku ci amal akub ñàngat di gis que ne waa opposition bi neexul ba neex waaye que ne ñoom mënuñoo génn Dakar foofu lañ yem foofu la ñuy amal ay campagne électorale te instant bii nii def nañ tuuru Dakar waaye mënuñoo génn ndax amuñ cinq base ci réewu Sénégal buñ génnee cinq nit du leen topp li ni mel moom moo sabab ñu daal di des foofee ci Dakar di xaar président Ousmane ko amal discours ñu daal di jël imperfection wu discours bi tàmbale di ci songu di ci kalaate naan xamul état xam na ko di wax ay sujet tabou ci état comme ni ko Abdoul Mbaw daal di waxee te loolee yëpp ay détails la ndax lépp lañu war a waxtaanee sénégalais yi daal di xam naka la ñuy yoree réew lii lañ leen andi loon comme actualité ñoo ngi leen di jox dig daje ci yeneen i mbir incha allah